moo lay jox Balla Gaye 2 mooy sa papa. Balla Gaye 2 mooy sa papa. dama ne Balla Gaye 2 mooy sa papa moo lay jox moo lay may xaalis dama lay duma Balla Gaye 2 mooy sa papa yaa ko wax yaay sa mooy sa papa Balla Gaye 2 mooy sa papa. dama lay noq rek. billaahi dama lay noq. maa la man maa la ëpp doole. maa la man maa la ëpp doole man boo ma dépassé ma duma la. liiru boo ma dépassé ma duma la. booy booy booy barke si coono ko def boo ma dépassé bu dul la Balla Gaye 2 mooy sa papa. Balla Gaye 2 mooy sa papa. dama ne Balla Gaye 2 mooy sa papa moo lay jox moo lay may xaalis dama lay duma Balla Gaye 2 mooy sa papa yaa ko wax yaay sa mooy sa papa Balla Gaye 2 mooy sa papa. dama lay noq rek. billaahi dama lay noq. maa la man maa la ëpp doole. maa la man maa la ëpp doole man boo ma dépassé ma duma la. liir boo ma dépassé ma duma la. booy booy barke si coono nga ko boo ma dépassé ma duma la. moo lay jox Balla Gaye 2 mooy sa papa. Balla Gaye 2 mooy sa papa. dama ne Balla Gaye 2 mooy sa papa moo lay jox moo lay may xaalis. dama lay duma Balla Gaye 2 mooy sa papa yaa ko wax. yaay sa mooy sa papa. Balla Gaye 2 mooy sa papa. dama lay noq rek. billahi dama lay noq. maa la man maa la ëpp doole. maa la man maa la ëpp doole man boo ma dépassé ma duma la. liiru boo ma dépassé ma duma la. booy booy barke si coono ma ko boo ma dépassé ma